ci bu bare la ca tukkee gannaaw bu ñu tàmbalee di ko àtteeg léegi. cour suprême bu Dakar daal dinay joxe dogalam ci mbirum Ndiaga Diouf ak Barthélémy Dias gannaaw bu ko avocat yu maire bu Dakar ñëwee kalaame dogal bi cour d'appel jëloon. cour suprême bañ na lépp kon àtte ba njëkk ba te ñu dëggaloon ko cour d'appel àtte boobu moom mooy wéy. dañoo dem diisoo ñu dellu siwaat ci seen diisoo ñu ne lii ngeen yëkkati euh, duñ ko jébbal. parce que yenuwul maanaam. mbir mi yàgg lool fa mbaxane doone benn gannaaw bu ñu ko àttee ca première instance ak ca cour d'appel bii la dogal day dëggalaat ndamu ministère public ak waa kër Ndiaga Diouf. bettuñu parce que li ñu waxoon lu mu mosoon a gëm moo am ba léegi parce que ñun dañoo mos a wax ni en fait Barthélémy Dias lu ko toppee moom moo ko def loolu la mos gëm te loolu la mos wax fu mu gëm. waaye avocat yu Barthélémy Dias fas yéenewuñu benn yoon banque seen loxo. am na mbaxana bu ko féete kaw. loolu nag ñun euh, dañuy yebal ñu liggéey bu ñu ne yemale leen fii ñu yem foofu kon boog ñu ngi déglu Barthélemy Dias ba xam ndax daf ñuy yebal pour que ñu yóbbu mbir mi fi gën a sori nga xam ne fa lay yem walla ndax nañ ko dàkkal kon moom la ñuy déglu. ci fàttali Barthélemy Dias dañu ko daanoon ca première instance ñaari atu kaso te juróom benn weer ya mu waroon koo tëdd. ak ndàmpaayu ñaari fukki millions ak i juróom mu di dogal bu cour d'appel dëggaloon balaa cour suprême bu Dakar.